jërë ngeen jëf mbokk internetu Thiès Info TV Thiès Info point com foo leen mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu jaajëfal leen rafetlu ànd gi ngeen di ànd saa su nekk ak suñuy programme tey nag ñoo am gan goo xam ni macha allah gan gu gu nu ràññeele ci Thiès surtout nag bu nu tolloo ci situation yi nga xam ne moom la réew mi toll ci wàllu politique. ak wàllu gis-gis maanaam nekkul nit koo xam ni day politique waaye ku xam-xamam màcc jëm ci ni euh, li nga xam ne noonu la réew mi di doxee ci wàllu décision yu gouvernement bi génne wala yeneen yoo xam ne dafa laxasu làmb ak lu mel ñu koy woowee monsieur Amadou Mangara Niang mu nekk professeur histoire et de géographie ca lycée Mabo ca région de Kaffrine ñu fas yéene sekk ak moom waxtaan bala ñuy dugg ci ponk yi ñu bàyyi ko mu nuyu ak internetu Thiès Info. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi ziar ñëpp euh, di sant bu baax auditeurs yi ak auditrices yi di ñaan yàlla waxtaan bi luñ ci wax rek lépp nekk réew mi de manière générale macha allah monsieur Niang ci présentation bu am solo bile ñu tàmbalee ko nag ak li nga xam ni jamono bile mi ngi lëmbe réew mi di rapport euh, Cour de comptes yi nga xam ni xayma nañ ko ci mbas mi atum deux mille vingt jàpp deux mille vingt et ñu génn woon ci lu toll ci junni milliards jëmale ko ci askan wi rawatina nag barabu fajukaay yi ñu dem ba jëmmi jamono euh, fan yi génn. Euh, bànqaas bu nuy wax cour des comptes génn ci document boo xam ni document bu sensible la document bu jaaxal Sénégalais yëpp la kenn ko ci nekk bëgg ci leer ndax ay euh, détournement de fonds lañ ci ràññi ko ay surfacturation euh, lu nu mel ak jamonoy mbas mi ban commentaire waaw liñ ciy wax rek mooy de manière générale rafetlu liggéeyu cour des comptes parce que aussi cour des comptes comme on dit c'est une institution de la république parce que bu ñuy xool la constitution bu ñu waxee le président de l'Assemblée nationale euh, le gouvernement le conseil économique social et cetera dañuy tudd ensuite les les cours et les tribunaux donc ñu def seen liggéey nag quand même bon rapport de 180 yàlla def ñu nekk un intellectuel di yëngu ci lépp loo xam daal euh, day jublu réew mi mais ñu koy mën teg ci ay faits wan ne lii lii la wax lii lii la wax jàngat bi nii la et cetera ñu liir ko am ci xalaat bëgg koo partager ak nit ñi mais quand même ñu def liggéey bu mucc ayib de manière générale wax dëgg yàlla. Mhm. ginnaaw lecture bi nga ci def surfacturation yi ñu ci wax ak euh, lu jëm ci yenn compte bancaire yi nu ciblé ak euh, juróom-ñetti bànqaas yi ministère yi nga xam ni joxal nañ leen ci baaraamu tuuma dem nañ sax ba ni ñoom waa Cour de comptes bëgg nañ ci information judiciaire ci lu jëm ci fukki dossier ak ñaar bu nu jumut euh, loolu lépp douze dossiers yooyu nga xam ni bëgg nañ ci information judiciaire ak fi situation bi toll Euh, euh, xalaat nga njiitum réew mi jëli dogal ndax boo xoolee jamono bi rek ci conseil des ministres bi mi ngi euh, waxaat le premier ministre monsieur du baax ngir mu daal di ci déclenché wu li nga xam ni moo di ay xàll yu nu mën a aw ngir loola noonu ñu xam fi ñu ko mën a jëmee ak justice xalaat nga président jël ci bile dogal sanctionner les fautifs. yaakaaruñ ko quand parce que bu xoolee les antécédents parce que rapport c'est pas la première fois que ay rapport sauf que bii dafa am particularité particularité bi mooy c'est exclusivement réservé ak euh, affaire Covid bi donc ñoom ci lañ taxaw c'est pas ay nag ay yooyu dañ doon def ay rapport de manière générale ARMP ak yenn cours yi euh, mais bii moom c'est exclusivement réservé à la à la gestion du Covid-19 maanaam nan ba nan lañ yore woon yorinu Covid-19 bi ñu ngi fàttali ni bi jotee Sénégal dafa mobiliser 1000 milliards comme ni nga ko waxee partenaires euh, publics yi privés yi état du Sénégal am lu mu joxe bailleurs yi FMI banque mondiale BAD yenn banques yi am loo xam nag aussi ci gafag ak sénégalais la jóge mooy boutiquier bii jaay borom barke yi sëriñ yi kilifa yi. Euh, syndicats yi artisans yi ñëpp ku ci ne xool li nga mën dajale ko lépp ñu nekk 1000 milliards. donc euh, xaalis boobu li nii mu demee li ko cour bi expliqué moo moo moo moo bett ñu bari mais bon pour personnellement man je dirais que que bettuma quand même parce que. ku yàlla def nga yàgg a xool eh, topp affaire rapport yi et tout di nga xam euh, li nga xam ni mooy ubbi buntu yi nga xam ne lii nit dina ko mën def ba pare jàpp ne dara du ko ci fekk. je prends un exemple muy le rapport de OFNAC hmm, nga xam ni en 2020 dama la jox benn exemple parce que li indi ce qui donne la porte ouverte yi nii yëpp. am na benn bànqaas bu am solo bu nag di liggéey ku ci am solo jot na ko xool muy eh, rapport OFNAC 2020 bu doon wax sur la déclaration de patrimoine dañuy wax ne sur 1220 Euh, assujettis au déclara à la à la déclaration de patrimoine seul ñi def déclaration normal de patrimoine matuñu 750 personnes. xam nga waaw ci biir Sénégal de 2014 à 2020 le rapport bi génn OFNAC ku ko am jot mën nga ko xool c'est disponible sur 1200 euh, ñi nga xam ni parce que rapport cour bi dani képp kuñ jox budget bu toll ci 1 milliard gouvernement Sénégal dani balaa ngaa dugg ci fonction bi di ko yor nañu xool yow sa alal li nga yor déclaration de patrimoine mooy lan mooy sa alal fan nga am suuf fan nga am bien matériel fan nga am compte bancaire ñu xool ko ngir jox la booy génn tamit ñu ne la lañ la joxoon wanaat ñu naata nga yor ñu xool diggante bi nga yoree ak diggante bi nga génnee est-ce que li nga fi am yellu na waaw wala déet par rapport ak li ñu lay fay par rapport ak indemnité yi fay par rapport ak prime yi ñu lay fay rapport OFNAC nag wane ni ñi nga xam ne ñoo ko war a def 700 750 et quelques personnes ñoo ko def presque pratiquement 50 pour cent ñi ki des dañoo bañ ne duñ ko def mais li doy waar mooy à la fin ñi nga xam ne ñoo war def déclaration de patrimoine vers la fin matul 50 personnes environ 25 ou 26 personnes ñoo ko ci def mooy lan kon ñiy def lu bu ñuy dugg lu néew la mais am na ñoo xam sax bu ñuy génn faf duñ nangoo wax ni ñaata lañ am ñaata la ñaata lañ fa bàyyi ak affaire bi nu mu demee donc muy lu doy waar suite logique la aussi li nga xam ne moo indi lii aussi ci li ci gën a metti nit ñi mooy contexte bi ñu ngi nekkoon ak fi réew mi tolloon mbas mi jafe-jafe dund gi naqari nit ñi seen situation précarité bi ñu yóbbu nit ni nga xam ne di nga ci gis gor soo xam ne xëy na mësul tàllal loxo mësul mësul xam ñaan mësul xam leb mësul xam dara mais coronavirus bi li ñuy wax ci wolof wuñ na suturas ay gor yu set wecc donc li ko metti nag ak li li kii sénégalais yi xëy na mbetteel gi foofu la nekk mais man personnellement attendre à des de des suites judiciaires wala yu ñu ko def sur les douze informations judiciaires yooyu nga xam ni rapport bi daf leen cité carrément ne douze yii ñii nañ ubbi information judiciaire mooy nañ leen topp woo ay enquêteurs justice dem ñu leeral foofu seen biir fan lañ dugal xaalis boobu. ginnaaw ñëw vérificateur. ginnaaw mm-hmm, mm-hmm. Euh, justement sànq Mm-hmm. bu ñu la déggee dafa mel ni rapport bu ñu la déggee dafay mel ni amul suite maanaam li ci sénégalais yi doon xaar antuwut bu ñu la déggee parce que def nga une explication succincte woon ñu loo xam ne vraiment concrètement xel mën na koo nangu ni kon rapport yooyu sottiwut et souvent ñu gis nii ni nag ak ARMP dañuy def ay gëstu ci marché public yi ak ci gestion yi nga xam ni bànqaasi gouvernement bi dañ fay jaar ci wàllu koppar. mais finalement dañuy day day mel ni rapport yooyu dañ koy ranger dans les tiroirs xalaatoo ni nag bi donte njiitum réew mi jot na ci ak décision bi mu ci nar a jël parce que bu exécuté Amadou Ba rek ñàkkut ni am na benn voie de recours boo xam ni fas yéene na fa aw bu ko defee mbir yi leer ci bopp sénégalais yi xalaatoo ni rapport yi rapport OFNAC euh, nag pour moi euh, Cour des comptes bi mën naa naax saay sarax daal waaw c'est très dommage quand même parce que euh, li ñuy wax dans un état normal cette question ne m'aurait même pas été posée ci yoon mais li tax ñu koy posé mooy c'est que ce pays on est en train la mal la malgouvernance maanaam yorinu réew mi ni ñu koy nasaxalee di ko sewal moo tax sax ñenn ngi toog di di laajte affaire boobu est-ce que du mujj fam daan am muy lu doy waar muy ce qu'on appelle la corruption des imaginaires cest à tey jii réussir nañ ger xelu ñin ñi ba nit ñi jàpp ne alalu nguur nit mën na koo sàcc te dara du ko ci fekk da ngay dem li nga laaj nii c'est une question normale parce que mooy la la question d'un journaliste boo xam ni le public li muy laaj ci mbedd yi moom la ñuy wax boo duggoon ci oto nga xam ne ñun les sénégalais lambda baadoole yi transport commun la ñuy dugg car rapide la ñuy dugg kalandoo la ñuy dugg bu ñu añee ba pare dañuy toog waxtaan naan ataaya ba waxtaan yooyu ñu fay waxtaan mooy diw sàcc na alalu nguur gi ñaata la sàcc sàcc na 1 milliard adu ah mujj fenn diw ñaata la jël détourné ah fenn diw lan la ministre na am na am na château ñu ne ah diw moomam lii c'est-à-dire dañuy mel ni kuy lewal xeetu nger di lewal xeetu détourner alalu askan bi yoo xam ni c'est des situations anormales mais ki malheureusement ci fee ak ci mbir au contraire on voit même nit ñu mel noonu dañuy gis dañ leen gis ni leen teg ci kaw di leen defal promotion loolu moo tax des questions yu mel nii dans l'imaginaire collectif ñu ngi di jàpp ne pratiquement du mujj fenn du mujj fen donc selon la suite logique bi nga xam ne mbir yi moom lay am jàpp du mujj fenn mooy le cours normal te c'est très dommage ñu yegg foofu parce que lu mel nii lii yoon mooy képp ku ko def ci aw askan lii dañ ko war a jàppe comme haute trahison je rappelle que le président de bi affaire bi amee mbas mi dafa amoon phrase bu am solo bu mu wax dañu woon on nous sommes en guerre en guerre corona bi la preuve ñii dañoo bañ ba le décret 2014 sur euh, les passations des marché dañ ko dañ ko dañ ko modifier yombal ko yombal ko ba nga xam ni sax maanaam délai d'exécution yi nga waroon def ñu wàññil la ko circuit yi nga waroon jaar pour ñu lay indil ay contraintes indil fii signature nangam ñu raccourciral la ko yenn exonération yi ñu defal la ko donc tout ça pour les mettre dans de bonnes conditions mais li daan am moo am mooy lan ministre DG euh, benn poste wala jàpp nañ daal benn tur boo ko amee sañ ngaa lekk alalu askan wi dara du la ci fekk te loolu moo doy waar. moo doy euh, ba tey ñu nekk ci phase complexe bu doy waar. mais face à cette situation gis na ni également ñenn ñi euh, dañu jàpp ni euh, Cour des comptes dañ ko war a réajuster ci IGE xam naa comprendre ñu bànkaas yi ndax mën nga cee ñëw. waaw ñuy wax loolu j'ai vu ce débat hein, se poser récemment ci ju si mujj yi parce que maa c'est comme si c'est fait exprès dañ ñenn ñi ñoo ko tey quand parce que certains ministères incriminés font tout et puis ce qui se passe on le sait y en ñoo xam ni c'est comme si ils font tout di yónnee ay nit ci plateau télé ñuy toog naan voilà a vu des ñu jéem a décrédibiliser le travail de la cour des comptes voilà dinañ dinañ dinañ ci ñëw ay kii di tudd naan li ñuy def est ce que ñoom tamit dañ leen a war a a war a nanga mais je rappelle cour des comptes cour la cour la boo xam ne c' est des magistrats ñoo fa nekk des techniciens en audit et contrôle ñoo xam ne seen travail bi ñuy def c' est important li nga laaj ni cour des comptes bu defee liggéeyam ba pare jiiñ la ne la sëñ Diop lan lañ la joxoon mi un milliard nga ni waaw ñooñu dañ la waxoon ne la tabaxal fii kër nga ni waaw cour bi bu paree day ñëw indi ay expert am ñëw auditer kër gi ban peinture nga peinturer ban carreau nga utiliser yan porte nga utiliser pour mu simple pour ñu may seetaan xam li may wax bu paree cour bi day dajale lépp ba nga jox ko sa réponse cour bi da jox yow possibilité de réponse ne la am ne la man li ma gis un milliard yi ñu la joxoon ak kër gi nga tabaxal nangam nangam yéen wul maanaa ci côté bi lii nga wax yéen wul maanaa lii ak lii ak lii jox la possibilité pour nga répondre mais loolu je pense que loolu démarche boobu lu ko gën a inclusive lu ko gën a wóor amul képp ku ci taxaw taxawaayu njub di nga ci mën a def taxawaayu njub mais ku ci jóg taxawaayu luubal mooy indi après ñu naan ay cour bi est dañ ko war a jëlee fii am na sax ñuy accuser cour bi naan ay magistrat yu politique moo fi nekk ce qui est extrêmement grave quand muy lu doy waar euh, prêter xam liggéeyam surtout nekk vérificateur jàpp naa ni rapport bi mu génne Sénégalais yi war nañ ko adopté gëstu ko waaye ñu topp ci bu fekkee am na ci ñun ci wàcc yoon ñu ñu ñu lijjanti ko ba bu ëllëgee du fi am sànq wax nga ko ñu toj bopp bi Mansour Faye moo fi nekkoon ministre du développement communautaire de l'équité sociale entre autres jamonoy mbas bi ñu octroyé ministère am lu toll ci deux milliards cinq cent ci wàllu njëndum ceeb surfacturation boobu am mu doy waar euh, euh, en général nag daaj yi ñoom ñooy piloté yu ni mel bërki démb def na benn sorti ci benn këru yéenekaay euh, du ñu tudd tur di def publicité def ci benn entretien exclusif boo xam ni exclusif bu yaatu wax ni je ne comprends pas la motivation de la cour des comptes ça veut dire que liggéey cour des comptes ci gàttal rafetlu wu ko amu ci yaakaar nan nga jàngatee waxu Mansour Faye parce que da koo def le lendemain li ci gën a graaw da koo def le lendemain gouvernement bi def conférence de presse l'argentier de l'État et le secrétaire du gouvernement def conférence de presse apporte ay éclairage par rapport à la question muy loo xam ne ba léegi day perturber Sénégalais yi. effectivement man j'en ai parlé waxtaan naa ko ci benn cadre privé ak sama yenn c'est-à-dire c'est comme si ak li xew lépp ah c'est comme si ak li xew lépp lépp lépp on fait tout pour sauver la peau de Mansour Faye maanaam dañuy def lépp pour sauver Mansour Faye la preuve moom moo sañ kenn sañul moom. moom waaw oui oui moo sañ lu kenn sañul maa Mansour Faye moo sañ lu kenn sañul Mansour Faye moo il ose aller dans des plateaux 2STV def na ko a à une journée benn benn question mu ne ko non non non comme petit comme un gamin man of nag man of nag moo woowee du ma dem waaye ah waaye wax na ko 2STV avec Astou loolu ku archivé di nga ko gis interrogé na mais mais en tant que ministre de ce que amul fu mu of nag bu ma woowee du ma dem Moustapha Diop de a traité des magistrats à des magistrats de la Cour des comptes des de petits magistrats ne vont pas m'inspecter dàq leen dans son bureau loolu presse bi relaté na ko et cetera donc li fi mu teg li ñu teg nii dafa am malheureusement nag ce qui a amené tout ce ce ce cafouillage là ci dëkk bi et tout c'est parce que dafa am un agenda parce que un agenda de développement bokkul ak un agenda politique cest à dëkk bi on est en train de substituer l'agenda euh, de développement à l'agenda politique maanaam jël affaire mbiru politique politique yi bokk koo jiital ci question affaire développement te nit ñi nit ñi tënk waruñoo tënku ci ay affaire ay politique kii mooy faloo kii mooy wàcc ak nangam nangam nit ñi leen soxal dëggantaan mooy seen seen nekkin mën a yokk seen anam mën a dem ci kanam li nga wax ni Mansour Faye moo ko wax sur la sur la cour là euh, seulement discrédité la manque de respect la mais comme li nga wax sànq sur les DAGE la direction de l' administration générale chaque ministère dafa am benn organisation bu muy am DAGE yi mooy le lieu technique comme li ma wax sànq ne mission d' bu ñu la ko indilee même les ministère des finances day am ministre ay inspecteurs yu dugg ministère yi def ay mission l' nationale mën na saisir un ministre passe à un problème ne ko yow d' accord ñoo tout un arsenal technique bu mu am ay conseil juridique ay conseil en audit ay conseil en finance ay conse conseil en rapport et cetera ñoo xam ne face à un problème bu ñu leen indilee benn problème wax leen ni yow nga nangam le ministère a les possibilités possibilités yëpp tegu na ci kawam pour mu teggi ay tuuma wane ni lii demewul nii nii la demee nii la demee mais on ñu lii am am ba pare ay te euh, presse ñëw seet ci la nga naan voilà cour bi lañuy ñuy liggéeyee sax man xaw ma ko mais s'il ne comprend pas la démarche bi bi des comptes di liggéey c'est parce que je suis désolé il ne de la république parce que cour bi ni muy liggéeyee quand liggéey bu leer la ni ma la wax sànq cour bi day liggéey enquête ba pare bu la inspecté ba pare écart yi mu gis ak anomalie yi mu gis dalay renvoyer le document ne am nga droit de réponse à un boo répondre ñu jël en compte boo répondre ñu ne réponse bi nga indi indiwoo réponse boo répondre réponse boo xam ne satisfait satisfaisant wul ñu ne réponse bi diw joxe doyul def recommandation à la fin attention à la au travail de la Cour des comptes c'est un travail extrêmement technique la preuve dañuy titrer wane ni lii lañ enquêté nii la demee nii la defee indi sa réponse la preuve en français pour ñëpp xam ko dañuy def entre guillemets boo répondre dañ ni le bi wala le ministre a donné telle réponse deux ubbi guillemets wan li nga bind ñu bind ko ci suuf à la fin nag ñoom ñu def seen recommandation mais je pense que un travail scientifique ne peut pas être euh, plus technique que liggéey bu jub mën ta weesu loolu donc cour des comptes on a amuñu benn reproche bu ñuy def à la cour des comptes bu ñu amee ñu ñu reproché mooy ñi sénégalais yi ñàkk jël seen alal jox leen ko ñu dugal ko fu ñu ko war a dugal ñooñu la ñu war a reproché macha allah mu nekk loolu kon éclairage du gouvernement bi euh, daanaka 24 heures la durée ak Mansour Faye ndax euh, bi mbir bi moomu génnee ci la gouvernement bi def point de presse Euh, wax na ni mille milliards la ñu décaissé wax na ni six milliards six cent quatre vingt six millions sept cent quatre vingt quatre mille quatre cent dix la ñu épinglé soit zéro virgule sept pour cent du total euh, nan nga gisee euh, li nga xam ne moom la du Mamadou Moustapha Ba leeral ak Abdou Karim Fofana. ndax doy nañ comme information. oui oui c'est c'est ils ils ont voulu jouer sur la technique quoi jéem a mel ni kuy nax nit ñi maanaam bàyyi fële mbir yi mi ngi mel ni sàcc bu sàcc rek sàcc nañ fi nangam nga naan sàcc nañ ko waaye li sàcc bariwul xam nga loolu c'est dommage dans un pays mooy boo gisee ñu jekki chiffre naan ay naan ay sur milliards nangam di jouer sur les pourcentages là les rapports de euh, absolu valeur relative et tout ñi xam xam nañ ni loolu def c'est quand dans un ministère benn adjoint comptable xaw ma chauffeur xaw ma lan fait vingt cinq retraites de cinquante millions et de cent million vingt ici mais le ministre Moustapha Diop. vingt cinq retraites lañ def boo xam ne deux retraites de cinquante millions et vingt trois retraites de cent millions cent millions mais loolu xel dina nangu ñu naan ñu ay non j'ai vu ñu koy défendre ci plateau yi naan non c'est parce que industrie yi ñu doon defar affaire masque yi ñoo ni kon ñoo ñoo mais xel sax nangu ko man mii di wax ak yow sëñ gis nii. damaa yor finance affaire équipe nawetaan ku koy defar bu la indee nga ne ko indil ma rapport ban ministère mooy fay de manière cash dañ ko war a interpeller nga xam ni mooy traiter les les les euh, dans un pays dañ ko war a cent vingt vingt vingt trois retraits de cent millions nit di ko def chaque jour il vient. 100 millions yóbbu dem def ci benn compte chaque jour ñu tracé ko tracé compte bi wane ni compte BOA bii la ko jëlee dugal ko ci compte BOA bii le ministre n'a aucune habilitation di jël xaalisu nguur bu ñu ko dugal 2 milliards 500 naan da koy dugal ci compte boppam ministère bi war na am euh, compte mais compte bi dafa am personnel spécifique bu ko war a am bokk na ci li ñu ko recommandé ne ko da ngaa war a nommer personne boobu foofu la euh, souci njëkk amee donc yii ñu jéem a wax yëpp di indi ay élément discrédité cour bi et cetera non seulement ça désacralise même la république cest dire gi ñu bokk ñun la ñuy ndërmeel ci ay réponses yi joxe yoo xam ne amul bopp amul genn li ñu war a wax waxuñu ko malheureusement. hôpitalu Kaffrine joxuñu ko baraamu tuuma ci rapport bi. effectivement laal nañ ko am na ay ay ay ay ay foofu aussi bokk nag ñi ñu wax ne nañu ubbi information judiciaire sëñ bi li li metti ci affaire mbas mi man j'ai été un acteur actif ci ci ci affaire mbas mi sama koñ dama fa amoon benn groupe bu ñu tuddee woon les volontaires du coronavirus ñi may seetaan mën nañu ko seede ñu jël en charge des enfants talibés ay taalibe di leen jël en charge pendant presque un à deux mois dama ci nettali benn anecdote bis dañu ñëw ci benn sëriñ daar yàlla xam na ko sama ñu am ndimbal luñ ko jox ba pare mu wooñu ba ñëw mu ñaanal ñu nañu ndimbal lii ngeen fi indi de daaraa leen tax a jóg ndax taalibe ni sonne waaye bu ngeen xamoon ñi ci jariñu man ko mu ne ma am na fi dëkkandoo yoo xam ne bu ngeen indee oto bi ba gaare li ngeen indi jox ñu ko ba pare bu ngeen demee dañuy ñëw indi seen bool wala indi seen nangam ñu séddoog ñoom lañ am c'est-à-dire covid bi dafa des disparité énormes yoo xam ne maanaam ñi ñuy jàppee réew mi ay kilifa di leen wax ay ay autorité na ma yàlla ñu ñu baal ma ci kàddu gi quand même li ñuy wax en wolof moo bi c'est pas péjoratif mooy li ñuy wax ak baadoola xam nga baadoola bu ñu koy wax du ci juddu baadoola lu ci lu ci du ci am-am baadoola ci jikko la baadoola mooy askan daje gënoo ci ndey gënoo ci bàyyi dàqoo cee jàng gënoo ci askan ñu dajale yëfi mbooloo ne la diw nga ne ah ñu ne la téel yaa ñu doy dajaleen ñu yoral ñu nga ni dama koy yoree ni ma neex séddale leen ko ni ma neex bu ngeen paree kenn du ci wax malheureusement c'est comme ça que ça s'est passé ñu ngi doy waar. Euh, daanaka nag euh, fukki weer ak euh, juróom wala lu ko gën a yees ñu dem ay élection présidentielle mu am loo xam ne également mu ngi ci suñu biir di candidature président Macky Sall xam naa dañ koy raay rek de façon très brève mën a dugg ci deuxième point bi tëj ndax ñu ngi ñuy signaler temps bi am na nag yenn leader yoo xam ne ñu ngi commencé di manifester wu di def ay méga meeting fii ci Thiès gis nañ ko fi récemment gis ko également Kaolack. mu nekk leader yoo xam ne ñu ngi commencé di défendre la candidature de Macky Sall pour deux mille vingt quatre am ñu ni candidature boobu warta mën a ne ndax constitution bi tëggewu ko lan moo ci sa jàngat. Euh, waaw li nga wax ni c'est am na solo mais nga baal ma tuuti rek ma am benn xista bu ndaw bu ñëw sama xel ma ci bëggoon partagé euh, dañuy wax benn amiral benn amiral mu'minin bu ñuy wax amir euh, Omar ibn Abdul Aziz dafa nekkoon amiral mu'minin pour affaire reddition des comptes ak trans problème gouvernance yi bis benn euh, ki ñëw mën nañ ko woowee benn benn percepteur des impôts pour ñu dégg ma li may wax def ak moom rapport ba pare ñu taal lamp comme lamp yi quoi ñu taal di liggéey ba pare waa ji bi ñu liggéey ba def état des financiers pare waa ji commencé na ko oh, Seydina Omar ana njaboot gi naka Omar jóg fay lamp bi ñu taaloon dem xëcc beneen lamp taal ko waa ji laaj ko ko mu ne ko bi nga may li ñu doon wax ci suba ba léegi maag yow waxu nguur gi lañ doon wax ñu taal lamp nguur gi biñ paree ci waxtaan lamp nguur gi damaa damaa war a fay lamp nguur gi taal sama lamp ndax sama njaboot nga may laaj te loolu bokk la nguur gi dara donc gouvernance bu ñu koy wax dëggantaan foofu la nekk dëkk bii ñuy wax Sénégal sunu maam bi ñuy wax Thierno Souleymane Baal dans le ci àdduna en 1776 la révolution Torodo fii lañ njëkk a posé les jalons d'une bonne gouvernance daf ni woon si vous choisissez un chef fal leen ko mais si vous le voyez enrichir outre mesure mooy muy am am am gu jéggi bu jéggi dayoo mu ne destituer la daaneel leen ko mu ne bu s'il refuse la destitution mu ne combattre la xeex leen ko donc réew mu mel ni bu ñuy wax yu mel ni di am day doy waar falaay transi defee transition pour ñëw ci question bi nga bi nga ma laaj Euh, sëñ bi àdduna ku ci génne ngor mu jeex àdduna ak réew mi ñu nekk Sénégal bu ñu ci génnee ngor àdduna àdduna nit jaratul muy dund nit mën na ñàkk lépp ba mu des ngor nii ñu koy waxee propagande bi ñu ciy def et tout ñi koy def ku ci xalaat ne ëllëg bis dina ñëw muy à commencer par le président de la République lui-même les légistes ñi ko bindoon ñi ngi fi président bi yàlla jëlul bakkanam ñi bindoon loi bi Ismaïla Madior Fall Omar euh, Euh, Mounirou Sy ñoo ñoo nekkoon les légistes ñoo ñoo bind loi bi yàlla jëlu jëlu seen bakkan yàlla nañ fi gën a yàgg ñu ngi fi waaye nañ xalaat ni bis dina ñëw ñu tëral leen ci jàkk mu neex leen mu naqari leen bis bi Masamba ak ba am du leen mooy dinañ leen tëral bis teg leen te lépp lu ñu waxoon ci kaw suuf dinañu ko waxaat ñoo gën a xam ni nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci ngor liñ bëgg a def xel nangu ko ngor nangu ko diina nangu ko dégg naa kenn nag moo xam yàgg mu ne politique dañ diine bokk ci mais diine bu génnee ci Sénégal ki dund gii Sénégal jarootul ñuy bàkkoo Serigne Touba. légal légalement juridiquement moralement en aucun cas il peut être candidat moo bind ci livre am Sénégal au cœur wane ni moom tooroodo la xeet bu ñuy wax Sébecolia bi ci la bokk moo wax lu mel noonu ci livre bind ci ne ma yéen sénégalais yi mu dagaan ñu ne maa ngi leen di ñaan. ngeen may ma un second et dernier mandat 2006 la ko bind nit ku mel noonu bu dee mi ngi xalaat dee bu dee mi ngi xalaat bàmmeel bu dee mi ngi xalaat bis penk ne lu mu waxoon dinañ ko woowaat ba mu dekk ci turam ñu ne ko yaa waxoon sa askan lii mu ne waaw la alxuraan waxoon euh, li maa taquluna maa laa yafalun yéen nit ñi lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def alxuraan lu mu mayul yonent mayu ko wàlliyu njiitu réew loo am doole ak lu la ko waaye daganal daganal daganal bis dina ñëw nga dajeek yàlla te lu génn ngor génn diina bu boobaa di nga ko layoo. ñu jeexale ci audio yi saar eh, Sarr yi ñuy dégg MC Niass mu bari loolu lu muy def eh, daanaka bir wi ci askanu Sénégal. ndax ba tey jii problème bi kenn comprendre gu kenn amagu ci lenn loo xam ni doy na la ci satisfaction moo xam Adji Sarr dafa juum yoon topp ko moo xam itam président Ousmane sonk li ko Adji di jiiñ am na wala amut Sénégalais yi guddi gu bës setagut lañ nekk. Mhm. waaw sëñ bi da loolu daf may fàttali benn benn benn wax gi bi Serigne Touba waxoon euh, dafa am benn xarit bu ñëw sama xel doon jàngale ne xam-xam ak lu mu mën a doon boo ko amee xam-xam nu na ànd ak jëf. na ànd ak dëggu wajxal jameel ulama amilin wajxal jameel amilin muxlisin wajxal jameel muxlisin zahidin zahidin naasixin noonu la ko terminé ba ci dernier degré bu Sëriñ Tuubaa wax borom xam-xam yi nañ nekk ay faïs xam-xam na nga ko teg ci dëggu sellal yiw nangam nangam ba yegg ci degré faïs sëñ bi mbir moomu ñuy wax ay Adji rek ak Ousmane Sonko bi kenn xamul ki nekkul ci dëgg mooy soxna si waaw man damaa seetaan sama télévision man nekk citoyen sénégalais sama yoon nekku ci faraluma ko faraluma mën naa bañ a faral ku ma neex lay faral ma taal en tout cas taal naa sama tele toog mbir mi am sama réew ay nit dee ci ma toog mu intéressé ma ma koy seetaan ma gis kiñ ne dañ koo def nangam mu xalaat mu toog ci télévision ne man dañ maa def nangam dañ maa yàkkataan damaa ëmb te diw moo ma ëmbal man loolu dama ko seetaan télé. soxloo ma interprète mu ma koy leeral soxloo ma analyste mu naan ma lii la jubloo soxloo ma un médecin mu may leeral loolu moom moo nii dafa ëmb dafa jël ëmb te diw moo ko teg ëmb boobu. loolu am ñu toog vingt 22 mois ma teg ki benn wax ku ñu jiñ ëmb ren ba déwén te doom amul yàlla setal na la ñiy wax lii ginnaaw gi nag moom ci boppam taxawaan na ci télévision sax ne mës ta wax loolu. Euh, ah. waaw audio waaw wax na wax na sax ay waxu ne man mosuma wax loolu yaakaar naa man boobu laa pare ci wax ji audio yi mu wax aussi tuddaat ci ay nit ay gor yu set wecc que ça soit de la manipulation ak lu mu mën a doon. je pense yëf moom yomb naa xam ndax nit lit lañ dégg muy wax muy wax ñuy tontante fam teg wax gi nag mooy dëgg la maa ko wax waaye dama doon test ak dama doon fo adduna Sénégal gi waaw bu dee bu dee nit bu dee ku mën a doon nga yaakaar ni di nga fowee bakkanu fukki bakkan ak nit ba fukki bakkan ak ñett teg ko ci sa nafs ak nguuruñ sa ginnaaw ak am loo yaakaar loolu da ngay gone rek waaye la sëñ Abdoul Ahad waxoon sëñ Abdoul Ahad dañu woon toroxtaange goo gis njëlbeen nga day neex foofu mu dañ torox tàngi goo gis njëlbeen nga day neex mooy di nga amuk pal di nga am tur di am daraja ñu lay tudd di la tudd di la tudd waaye bis dina ñëw comme ni ma wax sànq euh, nga xam ni yàlla du bàyyi kenn yàlla du maamu kenn te yàlla dees ko fawee. macha allah monsieur mhm. waaw sant bu baax di di di lu ci invitation bi di ñaan yàlla lépp lu ci wax rek réew mi tax ndax degré bu ñu mën a toll ak lu ñu mën a suñuy attaque lu ñu mën a doon réew mi yàlla nañ fi yàlla saxal jàmm waaye réew mi it yàlla na fi yàlla suñ borom saxal dëgg yàlla na fi yàlla bàyyi ay gor yoo xam ni muy xiin muy naaj muy taw dañuy taxaw ngir xeexal dëgg ndax réew mi ñu tuddoo Serigne Touba ñu ne est-ce que réew mi ñu tuddoo Seydi Hadji Malick ñu ne est réew mi ñu tuddoo Cheikh euh, euh, Limamou Laye Baye Niass ñu ne est réew moomu yàlla bu ñu bu ñu seytaanee mën ba ñuy jël dëgg di ko jëndee ak lu dul dëgg dëgg la jërëjëf jërëjëf euh, monsieur Amadou Mangara Niang nekk professeur histoire géo ci lycée Mambou ci région bu Kaffrine amoon mbégte bu baax a baax sekkoon ak moom waxtaan ci rapport Cour de comptes yi ak fii actualité bi toll toll ci wàllu politique troisième candidature euh, président Macky Sall bi nga xam ne tey jii mooy chef euh, leader benn bokk yaakaar waaye itam wax ci audio yi circulé di booy noppi sénégalais yi te comprendre ñu amoon mbégte bu baax a baax dala la am mbégte itam àndoon ceeg Oumar mun doon wane fu ne ci biir àdduna bi jaajëfal nañ leen fàttali leen rek ni leen gan gi noo amoon du politique yënguwu ci waaye dafay nekk doomu aadama boo xam ne saa su fu actualité bi tolloo mu joxe ci xalaatam ñu ngi leen jaajëfal sàkk ko ci yéen ak beneen invité beneen émission jër ngeen jëf ci Thiès info point com Thiès info TV.